wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom nangu ñu booleem jaamu bi ñu ciy def ñu ngi ak di ziyaara sëriñ bi di ñaan yàlla yàggal ko fi ba mu àggale mboolem naa la muy ciib tal te ñu ànd ko moom mbokk jullit ñi suñu borom dafa wax ci alquran ni wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai li wal yuminu bi laallahum yarsudun mu wax yonente bi alei salatu wasalaam ne ko su fekkee sama jaam yi laaj nañ ma ci lu aju ci man na nga leen xamal ne ku leen jege la ku ma woo mu wuyu la ku ma ñaan mu may la kon boog nañ may ñaan ndax mu mën leen a may kon waxtaan yi jëm ci ngëneelal jaamu yàlla gu am solo googu te mooy tàllal say loxo borom bi tabaaraka wa taala ko diis say soxla ak say aajo ndax jële nañ anas radiallahu anhu ne jële woon na ci yonent bi alei sunu borom day da doon wax yabna aadam innaka ma daawtani wa rajawtani gafartu laka ala kaana minka wala ubali yow doomu aadama saa yoo ma ñaanee te yaakaar ma te yaakaar na ma jéggal la nga defoon te aw lu ma cay faale mu ne kon jaam bi saa su tàllali loxoom ñaan borom bi tabaraka wa te foofu yaakaar yépp jëmale ko ci borom bi lu mu defoon sunu borom mën na ko jéggal mu te ca ne yabna aadam law balaxat dunuubuka anaana samaa'i summa staxfartani gafartu laka wala ubali yow doomu aadama itam su say bàkkaar bari woon ba jot asamaan ngir bariwaay ba waaye nga xam ne maay sa boroom nga jéggul ma danaa la ko jéggal te awma lu ma cay faalewaat yab law ataytani bi quraabil ardi xataaya summa laqaytani laa tusriku bi shay'a la ataytuka bi quraabiha maghfira yow doomu aadama itam soo ma dikke woon ci ay ñaawteef ay ñaawteef mooy ay bàkkaar yoo xamante nit ki da koy def sax te tay ko waaye du ak ci bokkaale yàlla nag nee na su fekkonte ne doomu aadama sàggan na ba muy yàlla mu jege mu fees suuf waaye mu nangu ne bi amut kuñ koy dendaale wala kuñ bokk kuñ koy bokkaale mu wéetal ko jégglu ko nee na la ataytuka bi quraabiha magfira sunu borom nee na danaa ko danaa ko faye mu fees suuf si ci ak njëggal kon xadis boobu boo dégg xam ne sunu borom ku yaatu yërmande la ku mën a jéggale la ndax lu ko waay mën a def ci ay ñaawteef ak i bàkkaar lu mu rëy rëy li feeg ñu ngi koy yéetal di ko jàppee benn buur rekk su ko jéggaloo mën na koo jéggal ñaan googu nag te mooy jéggalu borom bi bokk na ci jaamu yàlla yi gën rëy bokk na ci jaamu yàlla yi ëpp ay ngëneel itam ndaxte nit ñu baax ñi fi mas a jaar ñëpp rawatina yonente ya dañ daan tàllal seeni loxo jëme ko ci borom bi di ko diis seeni aajo loolu la sunu borom di leeral ci laaye juróom ñeent fukk ca suratul anbiya إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاسين gaañu baax ñu nee di yonente ya alayhim salaatu wasalaam dañ daa njëkkante ci def lu baax dañ daa ci def lu baax waaye dañ daan ñaan borom bi itam ngir xemmeem mu may leen ca xéewalam ya waaye dañ ko daa tàllal seen loxo itam di ko ñaan ngir mu jàngal leen lépp lu ñu ragal nekkoon nañu tam yu ragal yàlla yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na itam suñu borom yegg na ci foo xamante ni ci mbaaxam bu ko jaam bi ñaan sax daf koy mere man lam yasalillaaha yaxdab aley teg ca lu am solo itam moom yonent bi ibaada jaam yàlla bu ñu ko dee wax daanaka rek mën nañoo wax ni mooy tàllal say loxo di ñaan borom bi tabaaraka wa doy na ak jaam yàlla kon loo xamante ni yonente yi baax ñu doon ko def lu mat a roy la te mooy soo amee aajo nga tàllal say loxo borom bi tabaaraka wa ñaan ko ko ngir mu fajal la ko ñaareel ba ca la tax la war a jañ jullit bi ci muy ñaan borom bi bokk na ca waa aljanna ëllëg bu ñu tàbbee aljanna dañuy sant yàlla ci xéewal gi ñu leen baaxe ba tàbb leen aljanna naan yàlla ñu baaxee mu ñu mbugalam sawara waaye ñu teg ci ne mu nga dañ leen laaj yan mooy sabab si tax ak lu ngeen def ba tàbbi aljanna jooju ñu ne inna kunna min qablu nad'uuhu annahu huwal barru rahim kon waa aljana wax nañ ne bokk na ca la waral yàlla tàbbal leen fa mooy bañ nekkee àdduna dañ daal tàllal seen loxo di ñaan yàlla moo tax mu fegal leen bugalam sa wala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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا

حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح assalaamu alayna wa waqaana adaaba samum yàlla ni dañ leen a laaj dañ daa tàllal suñu loxo borom bi tabaaraka wa taala di ko bokk na ci la tax suñu borom baaxe dañ tàbbi aljanna kon ñaan bokk na ci lii waral tàbbi jullit bi aljanna ñetteel ba suñu borom tabaraka wa taala moo ci ñu koy ñaan mu ñuy may boo demee ci laay fanweer ak ñett fanweer ak ñaar ci suuratu nisa ma nga naan wasalullaha min fadli ñaan leen yàlla ci ngëneelam yi mu waxaat itam ci laaye fukk ak ñeent ci suuratu Gaafir fad'u llaaha muxlisiina lahu diina walaw kariha alkaafiruun ñaan leen yàlla te sellal sellal ko seen diine ji ñeenteel ba ginnaaw bi ñu xamee ne sunu borom moo diglee ci ñu ñaan ko sunu borom itam moo digal yonentam ba alayhi salaatu wasalaam ne ko ñii toroxlul yàlla te nangoo ñaan yàlla ngir mu fajal leen seeni aajo deel toog ak ñu mel ni ñooña deel taqoo ak ñu mel ñooñu itam wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bilghadaati wal asiyi yuriduna wajha wala taadu aynaka anhum ñoo ñi nga xamante ni waxtu nekk bokk na ci seen ak jaam yàlla mooy di tàllal seen loxo borom bi di ko ñaan yow yonente bi na ngay ànd ak ñooña na nangoo tool ak te bu leen fa bàyyi bul xool keneen ku du ñooña kon ñooñu ku nekk xam ne am nañ daraja te mooy ñi bi digal yonente bi ànd ak ñoom ñu toogal ak ñoom juróomeel ba sunu borom dafa tere kuy ñaawal jëm ci nit ñi nga xam ne dañuy tàllal seen loxo di ko ñaan képp koo xam ne gis nañ mu fonk ñaan yàlla mu fonk di tàllal ay loxoom di ñaan yàlla ku mel noonu kooku kenn mënta jëf-jëf ju ñaaw jëme ko ci moom wala ngay wax wax ju ñaaw jëme ko ci moom suñu borom moo ko wax ci laay juróom fukk ak ñaar ci suuratul An'aam wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bilghadaati wal 'ashiyyi yuriduuna wajha maa alayka min xisaabihim min shay wa min xisaabika alayhim min shay fa tatrudahum fa takuuna min addaalimin yàlla baax na ko mu taqoo di ñaan yàlla du texee di kon mën nañoo yaakaar ne kuy texe la waaye ku nekk ca safaan ba nag koo xamante ni du ñaan yàlla kooka la yaakaar mu texee di ëllëg yàlla ñu ci yàlla musal waaye kuy ñaan borom bi yaakaar nañ ci moom lool ëllëg mu bokk ca way texee loolu nag suma borom bi ñu ko ci lay ñeent ci suuratu Maryam ci làmmi yonent yàlla Zakariya alayhi salaam fam waxee ne walam akum bi du'aika rabbi saqiya mooy damay ñaan yàlla ngir ma bañ a texee di ngir ma bañ a taxee di mu nettali ci yonent yàlla Ibrahima tam ci laay yi fukk ak juróom-ñett ci suuratu Maryam wa rabbi asa allaa akuna bi du'aika rabbi saqiya damay tàllal sama loxo di ñaan borom bi ngir ma bañ a taxee di ngir ma taxe te bañ a taxee di kon nekke ndekete di tàllal sa loxo di ñaan borom bi dana tax nit ki texe waaye dana ko dàqal ak texe di itam ñu jële ci itam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom ni yonente bi alei salatu wasalaam nee na woon ñaan lu mat fonk la ndax nee na ñaan dana jëriñ ci dogal bu wàcc ba noppi ñaan am na ca njëriñ waaye dogal bu wàcc gut sax ñaan am na ca njëriñ kon fa alaykum ibadallahi bi doa bokk na ci juróom-ñaara bi itam ñaan bokk na ci melokaani waa aljanna ndax suñu borom mi ngi nekk fukk ca sóortu Yunus moo ne ñu nekk aljana bokk na ca seen kàddu yi ñu wax muy daawaahum fiha subhanaka allahum wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru daawaahum an alhamdulilahi rabbil alamin juróom-ñetteel ba ñaan lépp aw ñu la ñaan yàlla lépp aw ñu la ndax ñooñu ci jàll salaatu wasalaam moo ñëw am jullit boo xam ne dafay tàllal loxoom di ñaan borom boromam ba noppi am benn ci ñett yi benn suñu borom nangul ko ñaan nga may ko lam doon sàkku ca saasa muy benn benn nangul ko ñaan nga may ko ca saasa wala mu bañ ko ko mayagum ca waaye mu dencal ko ko ngir ëllëg ca àllaaxira wala boog mu dencal ko ca ci ay loraange lu tolloog lam doon ñaan kon ak ñaan ndegete boobu ne boo ko gisul ci saasi rek bul yaakaar ne mënul sa ñaan ndax benn ñett yooyu mën na cee nekk mu fajal sa aajo ja nga doon sunu borom fajal sa aajo ja doon ñaan ca saasa wala mu dencal la pay ga ca àllaaxira wala mu jëndal la ci ay loraange loo xamante ni mën na laa lool moo tax suñu sëriñ bi radiyallaahu anhu fonkoon ñaan lool ba taxoon mu doon wax ca masaalikul jinaan naan min du'aa li ubuudiyatin ay walaayu faqrin wa tanaajin yaa uxay nee nañ jaam dafa war di ñaan yàlla ngir feeñal ne ak jaamu yàlla la ak feeñal bu ñuy feeñal yittewoo bu ñuy ak aajowoo bu ñuy aajowoo ci yàlla ak déeyaalante bu ñuy déeyaalante yàlla nee na wa huwa allasi muxxal ibaadati doy li kawnihi azima qadrin daakaay na jaamu la ca amee solo nee na kon lu am daraja la kon nag nee na loolu na nga koy bàyyi xel moo tax moo xam moom moo sëriñ bi ba tey ci Masaalikul Jinaan ne ñaan jërta xeet idi doa yanfau maytan fil qubur wa yanfau lxayya wa yujibul ñaan mën naa jëriñ ko faatu ba nekk ci biir bàmmeel mën a jëriñe kuy dund waaye mën naa waral itam sunu borom bindal koy ñaan tuyaaba moo tax nag ci ay mbindam foofu ubbi ci téere fekk fa ay ñaan ngir muy ñaan borom bi waaye dañuy jàngale itam mu ñuy ñaan yàlla wa najjini wa jamii al muslimina wa najji waalidati amina yàlla yàlla nga musal musal mboolem jullit ñi musal sama waajur yu jigéen waxfir lanaa wa lahaa wastur maidanaa waltuf binaa wa bihaa fi lhawli yallaahu yàlla nga ñu jéggal te jéggal ko yàlla nga sutaal suñu ayib yàlla nga ñëwantit ñu te yërëm ñu ca ëllëg bis ba nga xam ne bisi la maanaam laa tajaawaz wa iyaana arxaman na fama lana siwaaka wa anta albarru wallaahu yàlla nga ko jéggal moom booy jur ñu jigéen woowee yàlla nga yërëm tam ndaxte kat am ku dul yow yow yàlla te baax ji yàlla ko taxaw itam ca xablu ba mu ca baax bu nekkee ci biir xabloom yàlla ko musal ci mboolem jàqare yi ak yi ñu ragal yi fii barsaqin maa qabrin kun wazara wa min kurubin wa xawfin najjiya llaahu laa taxtajirha bima laysa bi qaadiratin wala tuxayib rajaha fiika yallaahu yàlla boo ko nattoo ñu doon ñaanal booy jugu jigéen boo ko nattoo ba koy teg lim attamut te yàlla boo sooyal yaakaaram ji yaakaar ci yow maaha min maa i kawsari man yoxtartahu min jamil xalqi allah yàlla na màndal màndal ko moom itam ca déegëb kawsara déeg boobee nga xamante ni yaa ngi ko tànnaloon ka nga tànn ci mbindeef yi tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu la fonk woon ñaan balaa ñaanal mbooleem mbindeef yi yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia alwara ya haadiyan rada yàlla na nga yore mbooleem kon nag ku xam ne noonu la ñaan amee solo ñaan am na waxtu yoo xamante ni ci la ñuy gën a séentoo ku nangu ñaan ga waxtu yu bari la nag waaye guddi laylatul qadr ca la bokk bisab ajjuma bii ñu nekk ca la bokk guddik ajjuma ca la bokk am na wenn waxtu woo xamante ni ci biir bisub ajjuma la nekk itam gis nañ ci nangu ñaan wa laylatul qadri wa yawmul jumaa laylatuha saatuha almuaddama loolu sëriñ baa ngi ko wax ci Masaalikul Jinaan mu ne wal jawfu lil layli wa nisfu taani kada kadalika saxar wa sulisaani naka noonu bu guddi jotee ak genn wàllu guddi gi ku ñaareel gi bu jotee ak waxtu njël ak bu ñu xaajee guddi gi ñetti xaaj bu ñaari xaajee weesoo waxtu yëpp nit ki woo cee sàggan ne jóg di ñaan borom bi wa taala ndax sunu borom nangu ko kon ñoo ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mu nangu ñu boolam jaamu bi ñuy def te yàggal fi sëy bi ko fan gudd ak wér mu àggale boolam naa lam yi tamit ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa taala wa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

السماوات وما بينهما العزيز الغفار ثم السلامان على سيدنا محمد المختار المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب مهاجر سبيل فقال أيضا اغتنم خمسا قبيل خمس خذوا من حياتكم من موتكم ومن صحتكم من سقمكم ومن غناكم لفقركم ومن شبابكم لهرمكم ومن فراغكم لسوركم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق منها قسطاس الشريعة فدوم عليه وما خالفه فطيبوا منه فاتبعوه واعلموا أنما في الآخرة خير وأبقى وأذرني من أن تكوني ممن يخاطبون بقوله تعالى أو وهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اللهم تجيبنا على بلده من كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون وارتموا بقية عنده قد مضى أكثره في لا شيء يتداركون حرتم فيه شرور أنفسكم وحقوق العباد كي تسلم لكم القلوب من شؤم الذنوب ومن يتبعون وعليكم ألا تزالوا أنها غير معلومة لكم وخطرها باق مع الحياة ففي الخوف منها شغل شاغل عن الامتناع بغيرها لأن الخاتمة تبدأ السابقة ومن حسنت سابقته سلمت الفاتحة جعلنا الله وإياكم ممن سبقت له من الله الحسنى آمين الحمد لله الذي يسر على عباده الأمور الصعبة باتباع نبينا محمد الذي طبع الله على الخير قلبه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين اتبعوا ما جاء به والساعدين والرابحين وأصحابه الذين أعلموا بسنته ومدحه ومدحوه ومن يظهر بخصال الكمال فقال ومن أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا قل إنما أنا بشر مثلكم وما منك بهذا الجلال بقوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وما أعظم هذه الخلافة وصلى عليه هو بنفسه كما صلت عليه ملائكة قدسه وأمر بالصلاة عليه عباده الموصوفين بالإيمان ذلك غاية الكمال وقال تشريفا وتكريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل اللهم عليه وعلى جميع ما له من الآل من الأصحاب والأهل ومن تبعهم بالإلحاد والمآل اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا في جنبتهم وارزقنا القيام بما يجب لهم من التعظيم والاحترام مع أن محبتهم فرض أكيد وشرط في صحة الإيمان واسمعوا قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء